doon daw yoon liggéey jëriñ li fii waay tey ci seen scandale du jour de ce jeudi 21 décembre 2023 euh, fii ci VIP people kii di Amadou Gaye moom nag moom it def na ay révélation ci procès bi nga xamante ne xewoon na diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko ndax nag bu ñu fàttewul ci biir procès bi dañoo noon xaar Sonko mais nag Sonko mujjul ñëw ñii naan li tax ñëwul parce que dafa ragaloon ñu jël ay vidéo daal di koy posté ñëpp seetaan ko en direct ñëpp gis li nga xamante ne xew na diggante Ousmane Sonko ak. ak ki nga xamante ne mooy aji saar ba tax na Sonko nee na du taxaw fële ca tribunal jàkkaarloo ak aji Sarr léegi nag ginnaaw loolu bu mu amee polémique daal di juddu ñu naan Ousmane Sonko li ñu ko jugé du loolu lañ ko accusé alors que li tax ñu ak li tax ñu jugé ko ci loo xamante ne nekkul viol yaakaar naa bu ñu dégloo Amadou Gaye dañ koy dal di comprendre nañ dem seetaan vidéo bi ñëwaat. absent le parce que bu ñu taxawoon ci procès vous êtes d'accord avec moi. que le juge a ju jugement de, de manière oculaire la ko sur la base de de de ses yeux. de parce que li mu wax moo tax li sur la base de quoi. dafa ni déglu ma rek des relations yu am ci diggante xalé bi ak Sonko c'est des relations euh, des des des rapports pervers des rapports pervers On ñu ko wax te amul lu nga gis lu mën woné wane ni li c'est pervers xam nga fi may non Sonko. le jour où il n'était pas venu. erreur bi ñu def non si tu n'es pas clair. non li ma wax lu leer la. Ah, non non non dama ni. non il faut avoir le courage de se que mais yow toi aussi yow man mi ngay wax courage. Oh, non c'est pas clair man courage. c'est pas clair. non parce que li ñu wax man leer la. sois plus explicite. il avait les les conseillers de Adi Sarr avaient une vidéo. lu tax ñu teg ci biir tribunal bi ñu teg ko ñu teg ko écran. une vidéo de quoi. déglu rek lu tax ñu teg écran ah non vidéo lu tax ñu teg vidéo lu tax ñu teg un vidéo projecteur lu ah xamuñu projecteur lu tax ñu teg fa mos nga fi gis ci tribunal ñu ngi lay mosul am ci tribunal day am tribunal c'était bu fekkee ni par exemple ko dafa taxawoon on lui aurait posé une seule question est-ce que vous avez eu des relations sexuelles avec la fille su ne déedéet les gens évacuent la salle et le juge day taxaw woo ak conseil ak la cour ñu seet ndax loolu am na wala amul ci ci pièce bi nga xam ne joxe nañ ko mais su amulee su fekkee ni moom taxawul naka la comment su fait-il que muy taxaw moom kii rek par mbon comme ça rek entre kilifa gu day noonu ñëw di wan Sénégalais yi nii la affaire bi nii la demee nii la demee mënul nekk donc moom li mu gis mooy vidéo bu nga xam ne xale bi daf ko indi ngay vidéo mënul kan mënu ci basé wu pour wax ni jot la parce que li tax mooy parce que daf ko préparé te li tax mu préparé que expliqué na que nee na dañ ko laaj pour mu indi ay preuve moo tax mu dem enregistré ko. waaw mais mais mais mais. c'est aussi simple que ça mais mais grand. grand grand mais grand mais non mais mënuñu seede dara quoi. c'est-à-dire que wax fa dëgg ko déggandoo ñoo ko seetaanandoo mu nekk ay révélation yoo xamante ne kii di Amadou Gueye def na ko ci jugement boobu nga xamante ne jugé nañ ko Ousmane Sonko nee na nag juge bi. li tax tegul clé USB bi c'est parce que da doon xaar bu Ousmane sonk ñëwee mu évacuer salle bi ba des fa ñi nga xamante ne ñoo fa war a des ñoo xamante ne mënul ñàkk ni ñoom ñoo war a des ci biir euh, salle boobu noonu ñu daal di teg euh, li nga xamante ne mooy vidéo yi nga xamante ne Adji moom newoon na am na ko te dem nañ ba jokkoo juge bi ginnaaw nag Ousmane sonk ñëwut léegi nag lan ci juge bi lu tax muy jël vidéo yooyu di ko teg àdduna di ko gis ndax bu dul dara sax moom juge bi kilifa la te am na ay kilifa yi fa nekkoon te nawle dafa fort donc nag bu ñu toogee naan Ousmane Sonko li ko accusé ak li ñu ko jugé bokkul yaakaar naa dañoo comprendre lan mooy justice dañoo comprendre lan mooy yoon te dañoo comprendre li tax juge bi nga xamante ne moo jugé affaire aji Sarr ak Ousmane Sonko tegul vidéo yi nga xamante parce que après dañoo génn naan ñi yoruñu vidéo dañ doon tappale mais balaa ñu doon xam ni vidéo am na wala vidéo amul Ousmane Sonko taxaw te Ousmane Sonko nag Adji Sarr da koo défier woon dès le début nee na leen Ousmane Sonko du mës a nangu jàkkaarloo ak man jigéen nag du robb di sooy dafa ni woon Ousmane Sonko du mës a jàkkaarloo ak man te mu am dëgg ci côté boobu noonu ndax gis nañ ni bi ñu ba keroog ñuy jugé Ousmane Sonko di ko condamné corruption à la jeunesse ak yeneen ak yeneen yi ci topp mësul jàkkaarloo ak aji Sarr manam aji sar wax nopi ñu laaj Ousmane Sonko wax nopi amut te jour boobu noonu Ousmane Sonko bala ñuy naan jour bi mom dafa ni won carrément du dem manam aji sar am deug ci kaw Ousmane Sonko ndax nak bu fekkon li Sonko di wote deug la ci mom bu fekkon Sonko deug bi nek ci aji sar mu ngi ci mom je di bak nak aji sar mo ni ci deug mais manam ci défi bi ko Adji Sarr man de bu man te ci li ma lu leer la premier constat bi foofu la woon aji dafa défier Sonko du mësa que man te mu donc juge bi mënu jël ay vidéo intime Ousmane Sonko bu dara sa la père de famille la te dafa nekk dara vidéo exposer publiquement bu Ousmane Sonko évacuer salle bi di vidéo yi ne li nga wax parce que nag question la Sonko yow ak xale bi vous avez eu des rapports sexuels excusez-moi du terme wala sekk nga ak xale bi wala sëy nga ak xale bi réponse Sonko la doon xaar bu ko newoon déedéet dafay daal di teg vidéo yi mais loolu mënu ko def parce que Sonko n'était pas présent te avocat yi tamit bi Sonko nekkee suite ba te ñoom fekkeewuñu ko donc lii bokk na ci li tax teguñu vidéo lii bokk na ci li tax Ousmane Sonko ñu jugé ko ci leneen loo xamante ne am nañu yaakaar ni bokkul ak viol bi ñu ko ji.